sax ci jub jaamu yàlla nangoo liggéey nangoo bi. mu nekkoon jëmm joo xam ne daawul dañ di soññ taalibe yi ci jaamu yàlla ak topp yoonu siraatal mustaqim sëriñ Abdul Hakim Mbacke mi ngi gane àddina ci atum 1937 wala 38 ci mbul di dëkk waajuram wa di cheikh Mamadul Bachir Mbacke moom xaadim rasul waajuram wu jigéen di soxna maam Xadi Silla sëriñ Abdul Hakim Mbàkke ci mbul kayel googu la jànge alxuraanul karim ba mokkal ko ginnaaw bi jàng na xam-xam ci yeneeni kilifa ñu demee ni sëriñ Mbàkke jaxate sëriñ mahmadan Mbàkke sëriñ abibu Mbàkke imaam ak sëriñ mbay ja sëriñ Abdul Hakim Mbàkke nekkoon jëmm ju dal teey waaye taxawoon nag yàlla suñu boroom lan dégg mooy dafa ñëw àndaale xaasam ak tawfeexam xaas yooyu ak tawfeex jooju liñ ci dégg la ci lañ mën a njëkkee mooy ni ko sëriñ Mountakha di waxee sëriñ Mountakha daraan wax ne sëñ dafa jóg rek ma xam ko daal di koy seppi ci biir ay moroomam biir moroomam yooyu bu ñu ko doon sañ wax dañuy wax ne ñam moroomante ci ak ak ak ndawe ak ay tu tànk wala boog ñu wax ne nit ak ay moroomam yamuy àndal ci jiitu ñuy dal alxuraan sëñ Mountakha ne boppam bi ak gis sëñ Abdou rek daal koy seppi ci moom teg ko fi ne xam ne kii du moroomam moroom yi muy àndal kon loolu mën nañ cee dara jànge lu bari kon daa jóg andaale xaasam ak tawfeexam eh, raw ak maasam ca ba mu jógagut loolu la Serigne Mountakha teere ci moom. Serigne Mountakha Mbacké mi nga xam ne tey jii moo fi xalif général des Mourides daf ko tegoon fu kawe lool. ñaanal ma sëñ Abdou Hakim yi ma kenn ñaanal. ku ñaan ñaanal rek nag ma ñaanal suñu borom bàyyi ko fi mu am wér am yàgg fi lool ànd ak kattan gu mu nekk ci melow bii mu nekk nekk ci lii mu nekk rek naa mu wér na ko ñëpp ñaan naa mu wér am jàmm daan ci seer na ci jamono yooyee nag la amoon fu mu ko teg moom sëñ Muntaxa fu mu teg sëñ Abdou am fu mu teg sëñ ci biir moroom yooyu ñu ànd fa ànd baatin goo xam ne ànd googu lañu ànd ba ni ko sëñ Abdou mu tàggoo te noonu sëñ Mountakha noonu la koy waxee loolu nag sëriñ Abdou xaasam jooju noonu la ko àndee woon ak sëriñ Basiiru itam sëriñ Basiiru seppi ko ci ay mag maasam ndax am fu mu ko teg ndax am lu mu xam ci moom loola nag bañ ciy dox moom sëriñ Abdou mu jaar ci jaar-jaar yooyee ban fàttali ko man de damaa fàttaliku ba ma njëkk gi sëñ Abdou rek la ma yàlla dimbali ci xaasam jooju mooy yàlla def ko ci sama xol ma bëgg ko waaye yàlla dimbali ma may itam mu bëgg ma ci xolam te loola at mi fi sëriñ Bassirou jógee 1966 1967 ba mu ànd ak sëriñ Moustapha Bassirou sëriñ Moustapha Bassirou def tournée bu njëkk ba fekk ma fa may jàng alxuraan dama gis rek yàlla bëgg loo ko ci ab roomam laa fanaan guddi googa njël gëm jógee di jàng xasida ak di jàng alxuraan lam doon jàng mbind maag nam meloon nag lépp bëgg gi ma ko bëgg tax na ci dara bisub tey bi tawfeex jooju yàlla defal ma ko ci moom ba bi ma jógee fa ma doon jàngi alxuraan ñëw Tuubaa ma takk ko ba ma nekkul di jàng rek ak bërëg yu mel yu bari fa moom lay nekk sëriñ Abdou Akim Mbacke diir dundam dafa saxoon dàq di jaamu yàlla suñu borom waaye liggéeyal maamam ja di cheikhul xadim moom jëmm ji sax jot naa dem ca màkkatal mukarama ngir matale ponk lislaam boobule mu bëgg ma taxaw ma defoo ma ba àgg bokk na ci ba muy dem màkka xasida yi mu bëggoona a yóbbaale ngir di ko jàng man la ko bindul woon fàttaliku naa ci jaalibatul maraaxib ak yeneen ak yeneen man maa ci dolli xasida rabbi karimun boobu sunu borom Sëriñ Tuubaa tënki ci radiyallahu anhu wa ba ma ko ca dollee ci yamaroon binduloo ba yët ko ko bi ma ñëwee dafa caa am mbégte am ci mel na ku ci yéemu ci xasida gi mu ci dolli ak fi ni mu ko ñoree sëriñ Abdou nag noonu laay màggee ci ronam ci tànkam bëgg ko taqoo ko moom du ma ko sori ba lu baree bare ma xam ko ci moom ma amaat ay xaalis yoo xam ne du waxi rajo waaye am lu ñu loo xam ne sëriñ Basiru moo na ko boole ci baat Cheikh Abdoul Hakim noonu it la taxawoon nag mboolem njabootug Serigne Touba gi rawatina ñi nga xam ne jaaroon nañ fi nekki xalifaam. waaye ma gis itam kilifaam yi mu nekkal ci àdduna fa ko teg mu njabootug Serigne Touba gi fi nekkoon ndax Cheikh Abdoul Ahad Serigne Khadir Serigne Saliou Serigne Chouaib Serigne Mourtada kenn ku ci nekk ma xam cër boo jox Serigne Abdoul Hakim ndax loo xam ci moom noo ko jàpp ci baati noonu yi la àndee woon ak kilifaam yi desoon ci kaw suuf itam muy sëriñ Moustapha Bassirou te sëriñ Saxas Fall sëriñ Moussa ba ci sëriñ Mountakha bi ku ci nekk toog nañ ay jataay ma fekke ko kenn ku ci nekk am loo koy xaasal sa bopp ak loo koy seereel ak foo ko teg ngir loo xam ci moom loolu lépp xam-xam yi baatin la yërëmoon taalibe yi lool daan leen taxawu ci saasu ne waaye daawul dañ di leen digal lu leen di jariñ rawatina jaamu yàlla nu muy nun taalibe yi nag ni mu doon ànd ak nun ci yërmande ci cofeel ci yaatu ci taxawu njaboot ci yërmandeem yërmandeem jooju ak cofeelam googu tax na taalibe yëpp xamoon nañ ko ci ku mas am yitte dis ko sëriñ Abdul Hakim moo xam jàngoro joo bëgg a tàggool la moo xam yitte adduna lu mën a doon gëm nga ne boo ko disee sëriñ Abdul bu la ci ñaanale yàlla faaji saafara ko ba tax ñu bare bari sax dañ ko doon bëgg a def ñaan ñaankat ngir ñi nga xam ne ñaanu sayer rek lañ xam te luñ lu ko nit ñaan ñaanloo yërmandeem ja tax bu ko ñaanee mu am ñu bëgg koo def ñaan ñaankat te moom sëriñub tarbiya la sëriñub xaqiqa la sëriñub baatin la boo xam ne ci taalibe lay dund ci xaqiqa lay dund ak taalibe yi di leen ci faj seen ajo ba ñëpp jàppee ko loola sëriñ Abdou Guité joo ko mas a wax yërmandeem ak jégeem ci yàlla bu la ci ñaanalee ngi siita ji loolu ñu bari xam nañ si jàpp sëriñ Abdul Akim Mbàkke nekkoon ku ami teggin bëgg lool maamam ja di sëriñ Touba. waaye nekkoon jëmm joo xam ne ku fonkoon lool ñi nga xam ne ñoo di taalibe yi la. sëriñ Mountakha de yii ma wax ne ba ba mu ak ndawam mu nekk ci gone dalagut alxuraan ak ba mu del alxuraan la ko ci biir moroomam ba nii tàggoo sëriñ Mountakha loolu da ko seere ba tey te keroog bi mu wàccee man sëriñ Abdou ñoo tàggoo fii ma jógee ci tukki. ñëw siyaare tukki booba saa su ma ko fu ma ko masaan fekk ak guddi dana ma xaasal ci boppam ci waxtaan yu yaatu waxtaan yooyu da ca dolli ko lu kiimaane fi mu doon waxtaanee mu jóg di bàgg dama ñëwal ma toppi ci moom fi muy bàggee bu wàññi ko nu ànd diggante boobu sëriñ Isaaxa woo ma nekk ca Iran dama foo nekk ma ne ko dama nekk nii fi sëriñ Abdou mu ne ma bu ma ko ñame woon de ne la jox ma ko waaye ñamewu ma ma ne ko kon da ngay bàyyi ma boo si Isaaxa ma ngi tirti ma ne kon damay yalwaan téléphone bi te jox la ko sëñ Abdou ne tey sëriñ Tuubaa ka baax baaxu nit kii ne ko ñeme woon ñaan kii ko dama naa ko yalwaan kon te joxaat la ko addiye baat yooyu ko baamu sëriñ Isaaxa ba mbir mi amee bi mu ñëwee daf ma ne yow moom dama lay neexal ndax baat yu ma yu neex yi ma mujj dégg ci sëñ Abdou loolu yaa tax ma dégg ndax li mu doon wax ne sëriñ Tuubaa ka baax te baaxu nit kii ne bu ma ko ñeme ki dem naa ko yelwaan ko te joxaat lu ko addiya loolu di sëriñ Tuubaa rek am ñu mel noonu sëriñ yëpp loolu la mujj wax sëriñ Saax mujj ko dégg ci moom te loolu booba dama nekk ak te loolu nag jataay yooyu ay junni wala téeméeri jata jataay am nañ ko yoo xam ne guddi damay ñëw ba nu ànd bu noppee bu toogee téye ma nuy waxtaan nee naa wax guddi gu ne léegi damay waxtaan ci genn kilifa di ma jaar jaari kilifa googu di moo xarbaax kilifa googa ba ma xam ci kilifa googa loo xam ne feeg mi faat dootuma ko fàtte sëriñ Abdou lu baree baree bare man dafa ma ko seddoon ci boppam. Cheikh Abdou Lakim Mbacké mi ngi fi bàyyeekoo wujj suñu borom ci àjjuma dëppoog le 5 juillet 2013 dëppoo woon nag ñaar fukki fan ak juróom ci Shahban atum mille 1434 ginnaaw gàddaay yonent bi salallaahu alayhi wa di ko ñaanalaat yàlla yokk ay leeram te taas ci barkeem.